salle de karaté bi nga xamante ne bi dañuy wax ne dañ koy rénover rek ndax lu fi amoon la peut-être gajoon na fi euh, di saluer rek euh, le maître Thioubou euh, ci turu meeru commune Thiès Est di Pape Basirou Diop di wax ne salle bi ñi nga xamante ne ñu ngi ko fi ubbi tey jii yàlla na fi ay ceinture noir génn yàlla na leen yàlla dooleel yàlla na leen yàlla kattanal ndax maître Thioubou xam nañ ko bien avant sax ñu koy gis dégg nañ ko bien avant sax ñu koy xam Ceesuwaa la ay Ceesuwaa la ñu euh, te lii bu amee ci biir Cees gi defe naa ni lu war la kon suñu demee ba lancé ko taxawalaat ko parce que xamoon casino bu njëkk ba ring de boxe amoon na fi karaté amoon na fi kon tey bu ñu dellusiwaatee tey di ko fi di ko fi taxawalaat lolu dañ koy def du du du diko di ko saluer au nom du maire kon vraiment ci gàttal rek euh, vraiment ñu ngi ci ñu ngi ci ñu am ñu ngi ci am contentement bo xamantene ne dal euh mënuñu ko mënuñu ko prononcer ba niñ ko wara mëna xamé mais dal dañuy ñaan salle bi nga xamantene ne bi ubb nañ ko fi tay ji bon yal yal na leen ci yalla defal ndam ba ay ceinture noire genn ci ba ñi ñi am sax ay dan ndax karaté euh, c'est sport la bo xamantene ne bi ci xel lay ne ndax liñ fi génnee wax ko fi yëpp am na luñ ci capté peut-être suñ taxaw ci comme ni ko maître waxee mën nga woon ni que ne ko war ma ni may daanoo parce que daanoo tamit dañ koy rafetal rek kon donc loolu lu war la te defe naa ni kuy def carte maa ngay def judo foog nga di ci sóoraale yu mel noonu donc loolu tàmmal ko sa bopp aussi tamit lu am solo la ndax li muy wax lu am la toogaay dina la fekk ci action nga war a réagir boo amu noo réagir parce que lépp ci xel la donc li ñuy def nii ay mouvement la donc dafa war a ànd ak xel.

chef de division militaire paramilitaire de la Fédération sénégalaise de karaté et de technique nationales du, judo. Je suis le nouveau président Budokayo Club. On a fait l'ouverture aujourd'hui, mais ce matin. Je suis né à Thiès. Quand même, euh, mais, je travaille à Dakar. C'est pour cela que je suis là pour ouvrir un club pour soutenir mes les Thiessois. On va faire le karaté et le judo c'est self défense. Donc je pense qu'on va, on va faire tout quand même. On va faire le karaté normalement, puis le, le, le jutsu, c'est pour défense. Pour le karaté, on demande euh, le, le public thiessois, mais de venir nombreux pratiquer le, mais le karaté. En même surtout le, jiu self-défense. Parce que je pense que tout le monde doit pratiquer le, le jiu self-défense, hein, tout le monde. Je suis à votre disposition, je suis votre, votre petit frère. Hein. <laughs> le jiu self-défense, euh, je peux dire que c'est la mère des c'est la mère des, disciplines. Parce qu'il y a le karaté, il y a le judo, il y a le jiu il y, a le karaté, il y a le judo, en même temps, et l'aïkido. Parce que sont des trucs, euh, parce que, parce que le jiu il y a les atémis, il y a les frappes, projection, immobilisation et des chutes. Donc c'est polyvalent parce qu'il que, mais il y a toutes les techniques à l'intérieur. Parce que mais tout le monde peut pratiquer le judo à n'importe quel âge. Mais le judo, a plus de pratiquants et les, mais, les autres disciplines. Hein. Pourquoi Parce que tout le monde, parce que ça sécurise. Parce que souvent, on pense, les agents de police, les agents de sécurité, les, les éléments des gardes rapprochés, ils font le, le, parce que c'est complet. C'est pour sécuriser, hein, c'est pour sécuriser, ça peut, ça peut vous sauver quand même. Mm-hmm. Pour se défendre, il faut venir faire le, Jujutsu, mais mais la self-défense. Mm-hmm. Je pense même actuellement, les, dames, ils sont en train de faire ça. Hein. Mm-hmm. parce que c'est sécurisant, mhm. surtout, les forces de l'ordre. Je pense que il y a une chose, hein, c'est un problème d'infrastructure hein, et peut-être euh, manque de volonté. C'est la politique, c'est sportif, mais qui manque, c'est le seul problème. Je pense qu'avec avec l'appui des autorités, on peut quand même développer mais les arts martiaux, mhm. parce que c'est un berceau c'est un berceau, mais des armes les Donc je pense qu'un peu de poussée, les gens se peuvent en sortir. Mhm. Avec mes, adjoints, collègues, hein, c'est ça, on va débrouiller seul. Mais je pense qu'on que ah, va débrouiller seul après les autorités, ils vont suivre. Mhm. Ils vont suivre hein, parce que moi j'ai amené un tatami. Tatami pour les soirs. Donc je pense que de fur et à mesure, je pense que d'ici la fin, fin, d'année, on aura peut-être un club digne de ce nom. Euh, je me nomme Marcin Ndiaye. C'est une deuxième donne de karaté. Nous avons vu qu'à Thiès, il y a beaucoup d'agressions. Bon, nous sommes actuellement dans un monde agressif. Bon, tout le monde doit, tout le monde doit euh, apprendre les arts martiaux. C'est pour ça, c'est l'objectif du dojo. On doit pratiquer le karaté, le jujutsu, le judo, self-défense, etc. Bon, pour éviter certaines choses. Nous nous entraînons le lundi. Euh, le mercredi et le vendredi, à partir de 18h, pour les anciens, pour les plus euh, âgés, les enfants, le mercredi et le dimanche matin. Le mercredi soir et le dimanche matin. Le euh, mercredi à partir de 17h, 18h. Le dimanche matin à partir de 9h. Il y a certainement des gens qui ont déjà pratiqué et d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que tout le monde a sa place ici Bien sûr. Les arts il n'y a pas une question d'âge les vieillards, peuvent s'entraîner, les adultes, les enfants, les femmes, même les mamans, <laughs> les, papas, etc. Les autorités, même. Nous avons vu aussi des imams qui s'entraînent. Après les entraînements, ils vont à la mosquée. Comme Maître Ndoye, par exemple, ici présent à côté de moi. <laughs> Il est imam euh, euh, euh, à la mosquée de Tchali. <laughs> Ça dépend quoi, ça dépend, ça dépend vraiment. Il faut une motivation. am la fi souvent joxe ay échange mais ma non c'est pas possible parce que Thiès il faut un club il faut man ma ñëw fii laa dëkk donc il faut me installer un club donc la ñu que le club bi ñu tudd ko Budo Kayor. Budo Kayor club donc c'est ça nous avons ñu installer pour développer pour faire fi sa fekk sama élément Nous avons ñu fi club pour ñu renforcer pour quand même Thiès am ay club yu bari pour ñëpp développer parce que Thiès war na avancer. Il est bon, laa moom laa am lépp ci moyen parce que duñu toog rek naan Dakar wala tout ça mais Thiès mais potentiel Dakar nous avons fait te Thiès ñoom mais dem Thiès donc il faut ñu taxawal Thiès te développer arts martiaux Thiès ñëpp mais nous jàpp ci. 2000 avec un expert italien et espagnol euh, Miguel après après Giancarlo Bagnolo nous avons ci chaque fois dañu même on a organisé les deuxième championnats d'Afrique du jiu-jitsu mais à Dakar. Oh, waaw participé nañ ko fii def nañ ko ak 2012 ci 9 médailles d'or on a am nañu am nañu 8 mhm. donc nag gis nga jiu-jitsu moi je xam ne. lépp a ci nekk parce que mën naa wax ni kara discipline yëpp foofu lañ jógee karaté ci jiu lañ ko jëlee judo aikido parce que lépp la ñuy def parce que di nga di nga daanu di nga taxaw di nga di nga lem di nga contrôler def projection yëpp di ko def moo tax dafa complet waaw ak self défense pour pour sa bopp yëpp mi ngi ci ñëpp mën nañ ko jàng ah, parce que parce que dafa ouvert donc nag moo tax boo seetee ñëpp ñu ngi koy def actuellement ñu ngi ñëpp da am xam ko parce que dafay dafa dafay tàggat euh, population bi parce que am na yoo ne boo ko xamul rek danger day am day nah, tax tamit eh, nga xam lu bari ba pare encore day encore lu ci gëna ki dal demé da yok yar xam nga loy def té du yok yar rek baxul té or que discipline art martial surtout juju jitsu dafa yok yar contrôle té do violent da ngay contrôler problème lu mëna am di nga mëna contrôler gën ci waaw sangal lor doomu adama sangal sañu lor la yooyu yëpp foofay mais mais fofay avantage bi bon ñun ñofi nek man ak sama yenen collègue bon dojo bi ubbi nañ ko tay à partir de lundi on va dañuy commencer entraîner Ah, euh, lundi mercredi euh, vendredi à partir de 18h. 18h 18h 18h30 au plus tard. toute personne war a jàng armes. martiaux waaw muy góor di jigéen mag ak parce que nous sommes dans un monde agressif waaw surtout y a trop d'agressions. agression waaw trop trop trop war nga jàng avec les armes naturelles du corps ñun soxlawuñu sax peut-être ay yat wala ay kii on utilise les armes naturelles du corps loxoy tanki ak ay clé ay self défense et cetera ku bëgg bind boo ñëwee fii inshallah casino casino di nga ñu fi fekk am nañ fi ku koo xam ko moo yore yooyu wàll wàll moo yore bureau bi daal waaw moo yore wàll boobu bon inscription yeeg yëpp boo ñëwee rek nañ la informé wala nga woote au 77 136 94 40 77 136 94 40. monsieur autorité peut-être ci salle bi parce que kër gi seen kër la bon kër ñëpp la sax mais <laughs> ñom ñoko yor waaw ci seen loxo lañ ko yalla ko yàlla teg ñu ñoom ñu jox ñuko ñu leen remercier di leen ñaanal yalla bon di inviter tout le monde tout le peuple soir bon ñu ñëw entraîner dafa seen yaram parce que non seulement la santé rek santé wér gu bi mu lay jox rek mais am na yeneen yeneen recherche yu nekk ci biir waaw am na lépp daal loo bëgg rek am na fi jujutsu karaté judo boxe bi aussi mi ngi ñëw waaw si yoon bi di ñëw mhm. jërëjëf merci